est-ce que yaa xalaatoon nga ni di ngeen dund ci seen air. ci hmm. ci ci ci ci egg ba liberté yi nekk ci difficulté bu mel noonu. ci ci distribuer rek ay flyers kese. non man du du du ma du ma du wala maanaan ay amul am na dina ma jaaxal torop bu fekkee ni que ci distribuer flyers rek la jàpp. non ah, looy wax ni. xëy rek bu fekkee loolu rek la. <laughs> non boobaag léegi déggoo fi leneen loolu la. Ah? waaw déglu ma rek c'est que Papa Ngagne dégg na nee naa la sànq. am na ci ay nit ñoo xam ni du question ne que dañoo am xam-xam du question ne que dañoo am leneen fa leen fa leen fa ñu féete nguur ak fa ñu toog daf leen di tax a xam man mii am na loo xam ne xam naa ko ba ba may dee du ko wax yow mii am nga am na loo xam ne da nga koy xam te man du ko xam police dañuy nangu ne que ci loolu la liggéey police ma gaw gaw ko de distribuer ay flyers rek waruñu cee jàpp kenn jàpp naa ni que quand même police du ci jàpp kenn parce que bu fekkee ñëw distribuer ay flyers la mën nga xëy di distribuer ay flyers ba Sine Saalum am nga ci droit ñu leneen de lu dul distribution de flyers lañu dégguñu leneen waaw neel yow déggoo leneen wala neen yow xamoo leneen mais bu fekkee ni que ci distribuer flyers rek lañ leen jàppe wax dëgg yàlla du dëgg du yoon mais gëw ma ni que distribuer flyers rek a tax ñu jàppale d' accord loolu loolu sax mën nañ koo mën nañ ko apprécier parce que bu fekkente ni jàpp nga ni eh, bu dee distribution bi rek la dëgg du yoon eh, loolu mën nañu ko mën nañ ko mën nañ ko jàpp mais mm-hmm. mbay leneen loo xam ne itam bëgg naa ñu waxtaane ko muy mm-hmm. manko taxawu APR dama ci dégg Moustapha Diakhaté mm-hmm. eh, mu taxawal ko ma dégg aussi ñu ne président de la république moo sàkku ñu dàq ko ci parti bi ndax loolu am nga ci lu la leer wala déet que président himself moo dàq moo wax pour ñu dàq Moustapha Diakhaté ci parti mais teg si bi day mënuñu cee dàq ci président waxu ko. loolu moom dañuy wax rek dëgg ca yàlla tax. Mhm. jàpp naa ni aussi xëyul xëy rek demande ñu dàq ko ñun ñëpp gis nañ yëf yi fi mu jaar. te kenn du ko déglu kenn du ko laaj. dañ koy dañuy xëy rek dàq ko. déedéet jàpp naa ni euh, man dina am kersa bu baax wax sax ci lu jëm ci Moustapha Diakhaté parce que dama koo xam. te moom nga remplacer aussi ci pale comme chef de cabinet. bi ma ko remplacer aussi def na kéemtulaay kàttanam pour ma mën a def sama liggéey normalement. xam nga damay wax rek dëgg ca yàlla tax. très bien. damay wax rek dëgg ca yàlla tax. et ma jàpp ni que tamit wax yi muy wax ak lu mu mën a demee ak lu mu mën a mel moom mën na bañu egg fii nii. ak président ak njaboot. non président moo fa waroon a bañ a egg ak moom. wala moom moo fi mu egg moom ak. fi président egg ak moom déedéet déedéet. waaw ah. déedéet sëñ Moustapha ñun ñëpp gis nañ histoire jarul ñu ci dellu ci nettali lu rafetul wax lu rafetul la. man gisuma fi lu rafetul man. waaw déedéet dama ko fee gisul déedéet mu yëf yi mënoo cee boq man gis nga papa ngañ bu ma bu ma amee lu ma metti wala bu wala lu ma d'accordul damay jóg dem bàyyi. am ngeen instance bu mu ko mën a waxee. ah si. am ngeen instance ban ah, instance la bu ngeen ko mën a waxee secrétariat exécutif. dina réunir tout le temps. waaw régulièrement heure bu masaana dem secrétariat exécutif. moom bopp ma mooy scène bi. waaw mais déglu ma man membre la waaw man man ak Moustapha ñoo daan toog ci ginnaaw. duñ tere kenn mu wax bi mu mujjee fàttaliku scène bi mu mujjee fàttaliku moom mu bokk ci. man bokk naa ci ñu ni ko waaye ñii dañuy sonal rek dañuy wax ay wax yoo xam ni président daf fi nekk di tontu werante bi dañoo yàkkamti parce que mënuñoo continuer nag ba chaque jour chaque 15 jours ñu def seen boo xam ne 2 heures du matin la moom moo jóg ni motion président nañ def defal sa communication après ñu ubbi ñetti orateur après ku nekk dem donc am na fu ñu ko mën a waxe bu loolu weesoo mu seq ak président loo xam ni entre nit ak nit la mu seq ak njabootu président loo xam ni entre nit ak nit la mm-hmm. jaakaar naa ni que mën na bañ a egg fii fi nga bëgg a yóbbu wax ji dama koy dagg léegi ay am nañu ànd ak moom taxaw kii ak non man waxuma ko de loolu dafa may cadre yu nekk ci affaire yu ko wax dégg naa ñu ne am na ñu nekk ci ginnaaw Moussa man bul ne man maa ko wax dégg nga yow cadre yooyu ko wax dégg nga leen dégg nga ay cadre yu nekk ci biir affaire ñoom ñoo wax ni am na ñu nekk ci ginnaaw Moustapha Diakhaté pourquoi nga bëgg ma ko ji man xoolal waaw man man ñeme naa wax. am na ci ñu egg ba ni cadre yooyu sax ñu ngi def ay réunion nocturne. waaw mais de boo mu dégloo pour comploter derrière. ci ci da nga bëgg xam lan moo. waaw waaw dama a xam waaw. waaw boo mu dégloo moo wax. waaw d'accord allez-y. loolu lépp dara amu ci gisagoo cadre bu ñeme taxaw ni man Mame Mbaye Niang laa tudd cadre APR la lii moo am lii moo amul. si fii ñu xaaral rek mu wax la fii ñu toll nii. mais Tamsir fay li mu wax lan la. Tamsir Faye no parce que Tamsir ay dégg naa la wax. mu ar non dégg na. non déet non li mu wax kay lu leer man li nga bëgg a li nga fi nga man boo ma dégloo dinaa la wax. ok nee naa la amul ku nekk ci ginnaawam di def lii di def lii li am dinañ ci ñëw léegi ci commencé woon nañ ko wax. Mhm. amul benn cadre bu réunir amul benn ku bëgg mu sëñ Moustapha ci ñun la bokkoon tey bokkatul ci ñun am na sañ-sañu samp yëfam dañ ko koy nangul am na sañ-sañu dem defi xalaatam wax lu ko neex continuer wax lu ko neex mais dama jàpp ni que niñ mel ak moom fi ñu jaar ak moom am na wax yoo xam ni mën nañ ko moytu loolu rek laa jàpp bu dee léegi ay cadre yuy taxaw ñun am nañ lu gën a garaaw loolu nga wax am na ñoo xam ni comme ñi nga wax la ba ñuy xeex gisuñu leen ba ñuy ut nguur xëy na ànduñoo ak ñun wala dañoo toogoon jàpp seen jàmbur président am yaakaar ci ñoom indi leen pour ñu liggéeyal réew mi tey ñuy nekk di jéem a xaaj parti bi ku nekk di ut sa groupe ku nekk di préparer. kon nga bëgg a wax. Amadou Ba nga bëgg a wax. non non non non. dama lay laaj rek. non xaaral man ndax Amadou Ba nga bëgg a wax. man toll naa foo xam ni. waaw mais Mbaye loolu man man mën naa la laaj ndax moom nga bëgg a wax. soo ko bëggul wax ne ma bëgguma ko wax rek. bu ma bëggoon wax Amadou Ba dama naan la Amadou Ba laay wax. kon kan nga bëgg a wax. da non boo ma déglu. waaw di nga ma bàyyi ma eggale. ok bu dindi sama laaj bu ma bëggoon wax Amadou Ba. Mhm. Amadou Ba laay wax bi ma amee problème ak Amadou Ba ma taxaw ni ko li ngeen may laaj laaj leen ko Amadou Ba problème boobu dafa jeexagul ba léegi. dafa la problème boobu jeexagul. Ah. sa diggante ak Amadou Ba. non non non damay wax rek. ca yàlla ah. tax tey amuñu benn problème. maanaam moom jàmm lañ seq fu ñu seq dañuy toog waxtaan. bu xamee lenn wax ma bu ma déggee lenn wax ko loolu lañ seq ànduma ak moom defuma leneen ñu ñaar ñoo ànd di muy def li mu mën pour jàppale président may def li mu mën. mais dama ni. am na ci seen biir ñoo xam ni. li jubbati. ñu ngi xaajatle parti bi. non ñu ngi jéem waaw ñooñu. waaw loolu lu am la ku ci nekk di pexe mais boo demee boole ki ngay booleel danaan la xam naa lépp man wax naa la ko man na ma de moo tax man ni la buñ fi xëyee dàq fi ay nit bu kenn wax ni que dañ maa beddi wala dañ maa war li ñuy def président yëg na ko li ëpp njëriñ ci li tax ñu war a bàyyi yëfi division yooyu mooy dañoo war a booloo liggéey bilan la ñu soxla dafa am ay Euh, ay point points yuñ campagne dafa am engagement bu ñu wax ak sénégalais yi mooy cinq mooy cinq points yooyu ñu wax mhm. loolu dañ ko war a réaliser munoo koy réaliser ba pare ñi nga nekkal ku ci nekk bëgg a créer sa ruq bëgg a tas sa parti te ñu ñuy song fu nekk ñu war a taxaw defendre loolu ay nit bëgg a nekk toog ci toog ci li ñu leen jox defuñu liggéey bi ñu leen war a def loo di jéem ut ay nit wala di jéem a def leneen loolu nee naa goree di la loolu man maa ko wax d'accord donc amee amul ay groupe cadre ay ñuy réunion guddeeg ay yooyu ñuy wax yooyu politique xeetu politique. li am daal mooy li am mooy nee naa la. am na ñoo xam ni ci. Euh, benn lañu ñaar lañu ñett lañu benn lañu ndax ñaar lañu ndax ñett lañu li ñuy wax ëpp na ñett ëpp na ñeent ëpp na juróom. man ci diaspora bi laa jóge ñii di jéem a recruter fii di jéem a nax nit ñi kii naan may na créer ma groupe whatsapp fii ba xam naa li ñuy wax et li may wax nii umpul président moo tax ma ni la ñooñu xëy na man moo ma gën a muñ parce que moom nee naa la danaa bàyyi naa la ak yàlla mais buñ eggee fenn fi. wax dëgg yàlla bu leen ne may leen ma ma continuer liggéey parce que yéen liggéeyatul leen na Sénégalais yi xam ni que ñoom ñoo def luñ leen fi jëlee. d'accord léegi euh, Mame Mbaye euh, man li ma ci jaaxal mooy. Mhm. boo nekkee ci parti aussi. Mhm. Euh, am ambition. Mhm. mais wax nga ko mën a préparer aussi. parce que surtout président boo xam ni jeexal na ay mandaam. jeexal na ay mandam <coughs> xam normalement bu fekkente ni am nga ambition aussi mais loo wara a loo war a loo loo war a loo war a préparé wu la. Mm. normalement. Mm. loolu kay amul péché amul mm. amul bakkaar nekku ci. xanaa papa ma bëgg wax loo ci mandat bi dinañ ci egg mais dama ne la am ambition terewuñ ko kenn mais nee naa la ñun léegi bi ngay wax bokk nga ci sénégalais yi jàpp ni que liñ nekk di def nii campagne wuñ ko. Mm-hmm. loolu déjà problème la. Mm-hmm. parce que ñun loolu lañu campagne. ñu tànn ay nit ci suñu biir ëpp ñu fi ëpp ñu fi mérite gënuñoo xeex dàq ñu fay jàng ni leen yéen yéenay doxal li ñu campagne ñu nekk di ko doxal mu am ay incompréhension am ñuy attaqué loolu sa wareef bi jiitu mooy jóg jéem a défendre loolu bañ a sàmm sa der. waaw loolu moom defuñu ko. waaw bañ a sàmm sa. loolu loolu moom defuñu ko. moom defuñu ko moo tax te teguñu ko fenn aussi. waaw ci jubadi lañ ko teg. <laughs> teguñu ko fenn ak ci goree di goree di nag a fay fenn daal teguñu ko fa. waaw léegi beneen am nañ droit am ambition man. ok ëpp ñu ma ambition mhm. <laughs> def ñoom ëpp ambition non ëpp ñu ñu ambition nit ñi bàyyi woon li ñuy def yépp dem toog ak nit ne ko yaakaar lañ xalaat sampal lii. toog di jàng. di xool ñu jàllale la fii jëlee la fii jëlee la fii mais dañu ëpp ambition. d' accord mais man euh, ok man ma mbay man man mandat bi wax loo. parce mhm. ko ci jàppale. loolu moom archive yi ñu ngi fi. waaw loolu loolu nga waxoon. donc man loolu man du ma la si laaj man. la ah, ma ko si laaj. ma. kay euh, merci beaucoup. non non ma mbay. léegi non non loolu nga ci waxoon. Mhm. ndax loolu. maa ko waxoon de maa ko maa ko waxoon. mais loolu ngay confirmer ba tey maa ko wax maa ko waxoon. yaa wax lan. li nga wax nii ni nga non mais loolu jarul koy mii ma ko laab laab bi ci vidéo la ci référendum yi la ñu ni Macky day préparer pour teg deuxième mandat ñi nga wax ñëpp dajaloo daan ni non constitution bi muy changé pour daganal góor jigéen la ak pour def troisième mandat ak pour dindi kilifteef. Mhm. loolu la waxoon. Mhm. man ni leen lii ngeen di wax nii bu fekkee dëgg la man mën naa leen a giñal ci alxuraan ni que bu ko dee def sax man du ma ko jàppale maa ko waxoon man maa mbay ñaan mm-hmm. léegi da ngeen bëgg ñu prononcé wu ci. waaw ah duñ ci prononcé xam nga lu tax. xam nga est-ce que xam nga lu tax duñ ci prononcé wu ce que dem nga ci beneen parti politique ni ko kan mooy seen pour pourquoi ñun ñuy wax ñun fi ñu jëm pour que ñu teel ñu préparer te ñu am lu ñu wax ak ñi te sàmmaguñ ko. Mbaye man ngay waxal. dégg yow laay waxal dégg naa la nga ni candidat nga mairie bu Ngor yaa ko waxuloo ko loolu. maa ko wax. mais la waxuma sax candidat mairie Ngor. dama ni leen candidat mairie dakaar laa mais comme que. mais Ngor ngay commencé. Ngor laay commencé Dakar la ñuy mujjee. loolu laa wax Mbaye mhm. yow nga ñemee wax loolu. waa te yeneen candidats yi déclaré guñu. waaw te yow xamaguñu sax élection yoo xam xamaguñu kañ la. ñu lee local nga mën a taxaw ni candidat nga ci. mais nga ni yéen du ngeen wax ci présidentielles yi kan mooy seen candidat. waaw mais parce que dama jàpp ne que élection bi gën a jàmp bi ëpp solo. ca li teew ca ñu war ko lijjanti mooy élection locale yi pour pourquoi ñu bëgg ñu waxloo ci loo xam ni normalement am na ñaari élection ci diggante bi pourquoi ñu bëgg ñu ko waxlu fan lañ ko teg nañ nekk ci loolu. après ñu soog a wax ñun nan la ñuy def lu tax nga bëgg wax nga bëgg ngeen bëgg ñu wax ñun lan la ñuy def pour que ñi ñuy xëccool jógal ñu fagaral ñu préparer ñu duñu ko def xam nga lan la ñuy def juróomi ponk yi ñu campagne pour falaat président pour mu def mandat bi juróomi ponk yooyu la ñuy lijjanti ut nuñ ko remplir même bu dee bu ñu ko nuñ ko nuñ ko réaliser même bu dee à quatre-vingt pour cent pour que bu ñuy jógaat parce que élection yi di ñëw dañuy bokk. bu ñuy jógaat ñu mën a fexe. gagné li leen liñ leen laaj laaj ñu